sadi lisaani nawir janaani safi amaani wasit bara yi mbokki jullit yi mbokki taalib yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant seexul xadim ñaanal seex Muhammadu Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ku wér ak njabootu seen Tuubaa gi yëpp ni leen ko diggee woon ñi leen insha allahu rabbi tey jii nga xam ne mooy benn fanu safar ba ca fukkeeri fan baak juróom ñaar insha allahu taala bis bu jot dinañ leen defal vidéo juróomi waxtaan ak yéen ci kan mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadima Rasul donte moom nekk na koo xam ne kenn du ko xam ndax nee na li ma doon ku dul yàlla ma bind xamoo ko xaabat maqaam mi an siwal baaxil karim wa inna ni abdul xadimu laa yarim kooku nag di Ahmadu Bamba Xaadima Rasul mi ngi gënee jamono Mbàkke Bawal ci atum 1853 waajuram wu góor tudd Mamor Anta Sali waajuram wu jigéen tudd Soxna Jaariyatullah ñu gën koo xam ci Soxna Jaara Buso nga xamante ni wàllu waajuram góor ak wàllu waajuram wu jigéen yëpp ay sërif xaqal nan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy maamam ci casaanam moom Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye nekk koo xam ni bi muy dikk jamono sunu boroom xamal na ko nit yàlla bu mag bu ñuy wax Cheikh Omar Foutiyou Tall ñëw na Mbàkke Bawal xamal sañ Mamour Anta Sali ni ko ci sa biir kër gi dina am koo xamante ni saa bu ñëwee jamono. leer gi ma gis mu sedd jóge ca penk ba jëm fii ci biir sow bi kooku saa bu dikkee jamono kooku mooy ki nga xam ne mooy doon xaadima rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te kooku bis bu ñëwee ñëpp danañ xam yonent bi sallallahu alayhi wa te kooku bu dikkeet lépp lu mu santaane ñëpp danañ ko def lépp lu mu taree danañ ko bàyyi Cheikh Omar Foutiyou Tall seedee leen ko loolu moom Ahmad Bamba xaadima rasul waaye kenn ku ne xam na ni soxna Jaaratullaay maam jaar Jaara waa jën wu jigéen di soxna Astawaalo mi nga xam ne ma nga ca naawel nekkoon boroom alal lool nga xam ne booba jamono bu bu nekk nit bari na alal mooy ku bari jur ku lëppi jur rek moo lëppi alal waaye soxna Astuwaalu moomee jël soxna jaar jox ko Maam Mor doon dabu lan njaboot gu baax doon dabu lan jëkko ju rafet nga xam ne keroog soxna jaara Yatulaay maam jaara Buso bi nga koy jox Maam Mor Anta Sali dafa ibbi kaamil alquran yam ci maakaana muhammadun aba ahadi min rijaalikum walakin rasulallahi wa na nabiyin nga xam ne aaya ba la mu wax mooy ginnaaw Seydina Muhammad ab yeneen dootul dikk ginnaawam waaye nag soxna jaara ni waxi suñu borom dara du ko dindi kon jur ab yeneen dootul am waaye kon danaa wax ne kër Mamadou Anta Sall dinaa fa jur koo xam ni ku ne rasulillahi sam xel dem ci moom muy xaadimu rasul jëf ko fa sonnee ko fa daj fa lu ne ngir am ku mel ni Ahmadou Bamba xaadimu rasul kooku mooy Serigne Touba nga xam ni Ahmadou bàmba Mamar Anta Sall ma ngi ko tuddee ki nga xam ne moo ko jàngal alxuraan ñu gën koo xam ci Ahmad Bamba Sall di sëriñu daaraam moom la tuddee Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye Cheikh Ahmad Bamba ba matee dal jàng alxuraan waajuram wu góor moo ko dalal jàng alxuraan di Mamar Anta moo ko dalal jàng alxuraan jàngal ko xam-xam moom Ahmad Bamba Xaadim Rasul nga xam ne diir bi waajuram wu góor di dund di Mamar Anta Sali musta tàqali moom. fa Maamar Anta Sali ne rek fu mu yendu moog Sëñ fa ànd fu mu fanaan moog Sëñ Tuubaa fa bokk nekk nga xam ne diir bi fi waajuram di nekkit Sëñ Tuubaa wóotiwul dara déedéet bi fi Maamar Anta Sali di nekk Sëñ Tuubaa wóotiwul dara daa topp ci ginnaaw waajuram waajuram yor daara alxuraan di yare ak di jàngale Sëriñ Tuubaa dem ba nga xam ne wattu na alxuraan xam-xam bi tàmbali naa bëtt di wut waajuram ci daara ji ci jàngale xam-xam ak di yare nga xam ne ci loolu rek la mus a nekk ba nga xamante ni waajur wu góor nag génn àddina ca lay doog a nag woo woote baa muy taxawal dara waaye waajur wu góor woowu di Mamour Atta Sali kenn ku ne xam na cofeel gi nga xam ne am na ko ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadima Rasul donte mooy waajuram waaye da koo bàyyi woon xel ca lan la ko bàyyi woon xel melakaan wi nga xam ne Sëñ Tuubaa am na ko ndax bul fàtte ne Sëñ bi mu bind Masaalikul naan fukki at ak juróom-benn la am xam ne keroog ba nga xamante ni. bind na téere boobu ba noppi xaadima jatakala da koo xool ni kunta ibnan fa sirtu abban kunta tilmisan wa kunta sayxan yaa nekkoon sunu doom tey yow mi yaay sunu baay waaye ñun ñoo nekkoon sa sëriñ waaye tey yow mi yow yaay sunu sëriñ ñun ñooy say bi kon nga xamante ni ay waajuram bàyyi woon nañ ko xel moom it booba sëñ Tuubaa mi ngi fàggu digganteem ma borom bi subhaanahu wa ndax ku dem ba sa waajur ni la sama app jot na te foo ma jëm lëndëm na lool metti na lool te yow rek laa fa yaakaar sëñ Tuubaa ne ko la sam xel biir bàmmeel doo fa gis loo ragal te yomal xayaam ga nga nga jëmit da nga fa dajee ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala kon foofu lañ yemal di waxtaan wi inchaa allahu ba subaa jàmm wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu